Assalamualaikum internet yek auditeur yi assalamualaikum Abdoulaye Diop yassine Mamadou Mohamed Ndiaye passe partout sen journal des faits de xalaas ah ba batay euh, ci euh, RFM 94.0 point 0 Ndiaye maa ngi lay kontaane bu yene jeuf ababakar damay deg ngay faral di wax lol boko waxe nit lum la wara a tontu. am ci nit ki maa ngi lay kontaane. maa ngi lay ni tambalé ni fi ni Ndiaye. ya man dama am sama sama cri cœur bop te Ndiaye. yow la anga secret de cœur waaw bi fi Océan doogee ñëw. Hmm. dafa am ay nit yu taxaw ni Océan dégage. Hmm. xaw ma dégagé na wala dégagé mais Océan ba lé mi fi dégagé wul. <laughs> barki dé mo Ndiaye am benn bu bes bu ñu xam man tribu dama ko muñu China Mall la xawma China mal hmm. China Mall. ñëw tijji fii. démb même personne taxawat na China mal dégage. man dama am problème Ndiaye. Ndiaye ñun ay gor gor lañu. suñu nelaw doyul ki taxaw ne China moo la Auchan dégage non seulement non seulement créé wul benn emploi créé wu fi bitigu mag d' accord naa ko ñu favoriser euh, euh, xaw ma consommer local ak entreprise sénégalais et tout waaw mais yow bu fekkente ni sa moromu commerçant wu sénégalais bërki Dembo Ndiaye moo fi yokk saako soble ba cinquante mille francs ci ay moromu sénégalais am kenn kaasu loolu say morom senegal ñoy ay commerçant ñoy jël ñoy la sen morom senegal soxla bagax ñu jël ko neub ko yok ko double ko triple ko diko jaay sen ay morom senegalais ñun xoluñu china mo lok ocean xam nuñu xol lu yo xamna hmm. suñu poste ak luñu mëna dundé hmm. kañ koy téré yoruñu joxuñu dépense fay ñu salaire hmm. nañ ñu bayyi china mo reste ocean reste <laughs> dañ am nga ci droit <coughs> mom mi bëgg ñu jogé fi xalaatam la wax yow mi bëgg ñu tok fi sa xalaat nga wax ba paré ba paré xam nga lan moy problème réew mi nit ki fa mu nekk di wut boo yàqee foofu yàqal nga ko moom man jour ba nga toogee ni RFM wala TFM nangam ak sàngam man jour boobu nga ma attaqué xaw ma yëg nga ko wala yëgoo ko parce que man fa laay jëlee lu ma yóbbu sama kër yow heure boo xëyee yaa ngay dem fa ngay jëlee la ngay yóbbu sa kër waxoon nañ ko yak nañ ko li nañ ko lele bo nan nañ len boycotté ñi nañ len boycotté ñele bo boycotté ñi boycotté nga ñafay parce que ñun fini ñaxé fini fi de lu ñu suñu kër yow bo taxé nañ ko boycotté ba paré xalaat né ñun buñ toggé yow dinañ wax lu neex nit réew mi kenn moomul nit ñi na ku nekk nekk ci la nga nekk té respecté ki ci la mu nekk China ay sénégalais ñoo fay liggéey Auchan ay sénégalais ñoo fay liggéey gis ay association yu nekk wala yu nekk di génn léegi ku laalati fii ñun nga laal parce que wax nañ dëgg. waaw ah parce que wax nañ Sénégal benn nit moomu ko wala ñaari nit ay sénégalais ko moom te ku ci nekk da ngay xëy di daan sa doole di yóbbu sa kër. ku ci mereti wala ngay gedd wala ngay grève yàq li nekk sa kër sa kër am na ay écran na yoo mën a toj da nga ko fay bàyyi romb ko génn jël fi jàmbur yàq ko pour lan loolu. gis nga Aba. VDN Tech bokk na ci lu ma gën a metti Verentech mm-hmm. mooy mooy ci abribus waaw un fils du Sénégal bu nekkoon États-Unis moo bàyyi liggéeyam ak yëppam bi muy ñëw ànd ak ay boy yu nekk ay biir États-Unis indi leen fii ci réew mi investir ci Verentech maanaam di yokk taaru réew mi ba noppi di yombal nit ñi booy xaar bus toog xaar ko wala mm-hmm. ak ah, benn état moomu ko moom moo ko moom. ci arabes yi benn état moomu ko. Mhm. doomi sénégalais ko moom un jeune. Mhm. suñu morom bii nga dem yàq fu jàmbur après demaat sa kër yow toog boo xëyee suba nekkaat ci say activité kooku moom war a defaraat yëfam wala war a perte nañu xoolaat réew mi quand même. mais gis nga Aba ki kilifa gu mag yàlla na yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem Serigne Babacar Sy. Mhm. radiyallahu taala anhu da daan wax naan nit ki bu la matul nawle bu mu la mat noonu am na ñoo xam ne man seeni wax iñaane naa koo wax. Mhm. mais na mag nee na ma boo dee kilifa te mënoo am taadu sedd da nga koy meree sa ndey. loolu ku la mhm. dee kilif boo dee mos mag te mënoo am taadu sedd. Mhm. koy meree sa yaay. mënu maa comprendre yow lu jóg yaa nga ca. ay ginaar bu ñu dee xuloo sax nga ñëw taxaw wax. Ah. te doo fa wax waxu nit. xam nga xeet yu mel noonu man nawloo ma leen bay wax ci ñoom li ma xalaat. nañu bàyyi Auchan nañu bàyyi China Mall nañu bàyyi leneen terewul nit ñaa ngi fay dem terewul nit ñaa ngi fay liggéey terewul nit ñaa ngi fay donk li am solo mooy boo dee wax waxi dofit nit ñi nite nañu nit goo xam ne duñu la topp ci li ngay wax. ah yaa ngi dégg. en tout cas ñu ngi bëgg moom nit ñi. non ah. non non bu fekkoon te gis nga jaay bu fekkoon. kenn liggéeyu ci. bu fekkoon bu tabaski di ñëw. Mhm. ñu double pomme de terre double soble double double double ndawal li nga kaas ko ñu mën a wax. su tabaski doon ñëw wala màggal Tuubaa ñëw chauffeur yi triple pass bi nga kaas ñu mën a wax mais dara xam nga xam nga pass moo ñaare fi yokk pass tataay kenn wax ko kaas moom ci démocratie la bokk wax sa xalaat keneen ki wax xalaatam ci lañ ko ñu dem c'est que Ndiaye c'est que Ndiaye non non c'est que am ñu politique intéressé wul man Ndiaye sama genre bi politique mënumaa yóbbul fenn mënumaa apporter dara man comédien laa animateur la soo fi gis président bu ñu fal wala politicien bu ñu fal mu fal comédien wala mu fal animateur déedéet ay ministre lay far ak ay yére donc am na ñoo xam ni loolu intéressé wu leen boo ñëwee bëgg leen yàqal seen yi fa pare njaay réew mi da cee ay nit ñoo xam ni dañoo soxor maanaam tiim njaay mu nekk journaliste RFM nga naan léegi seen li ngeen nekk nii léegi mu jeex man c'est un boo xam ni dafa ma dérangé maanaam booy xeex xeexal sa xeex xeexal ak politiciens yi seen biir rayante leen mais baleen sénégalais lambda yi nekk seen yëfi bopp ngeen koy jéem a yàq. loolu la ñu war a bàyyi. li metti mooy boo leen toppee dañuy feeñal sa jikko te dañ koo jaru te jaruñu ko. nañ jëf Serigne Saliou jaruñu waaw nañ jëf ñu doxal xaar lu gi njëkk yi wax maa ngi leen di terroriser de xaar taay moom dama yow yow eh, indi lii <laughs> indi lii yow nga moom nit ñi fay kilim ak di taal kilim ak di wax yow mais yow mii Passepartout yow da léegi da nga yëg succès de. daba nag. toog nga fii ne Ndiaye xaw ma démb lañ ma invité xaw ma lan ma wàcc sama bopp wàccaatal de. da gën a wàccaat waay waay waay

mu gëm loo leen ñenn ñi ne ñii nii samay nit la ñu ñoom moo fi tegal fii ndekete ñooñu ay kàndaar lañ comme ñeneen ñi. ñii police ñu ngi jaabante. ñii daw nañu dem ca côté Algérie ñii génn nañu réew mi làqatu ji. moom anamu. Assane nga Brésil numéro bu mu yor boo ko messager bonjour Moussa changé numéro boobu supprimé wuti beneen. mais ñi mu ñi mu ñi mu tiriande am nañu benn idée ci ñaata la lekk lépp lépp boo ko boolee. mais en fait nit ñi dañoo bari. Hmm. dañoo bari xamante wuñu

mais xaalis bi gars yi ci moom loxoom la jaar. dem ci Assane ci loxoom la jaar dem ci Assane comme ki comme keroog waxoon keroog. vendredi. Mm-hmm. kii même situation la nekk. ñu déglu déglu. fi ma xamante ak Assane Thiam sama benn cousin buñ naan Mbay Daaru na Brésil léegi moo ma booleeg Assane Thiam Assane Thiam mënu ma wax fii la dëkk mënu ma wax fii laay jabaram dëkk mënu ma wax doom fii la dëkk mënu ma wax lennam par téléphone noonu xamee mu présenté ma ko wax ma voyage bi nii lay demee soo ma sa xaalis di nga ñëw Brésil di nga ci groupe bi ma ngi sama deux millions cinq cent jox ko téléphone lañ ma présenté ma soobu ci jox ko sama xaalis noonu la fa demee nag appartement deux jours fon nañu gën a jàpp confiance rappelé wu ma ko sax man ndax boobu maa ngi ci man tamit préparation pour dem ndax ñoom ñoo waroon dem ci premier jour bi ñu fa ñëwee bis moo leen waroon delsi man la lendemain laa fa waroon a ñëwaat pour préparer man tamit ben xëyee ñu woo ma daan ne ma demuñu man leen tax ñu ne Assane Thiam boobu lañ ko gëj a dégg ma jaaxal ma ñu teg ci quelque temps police ñëw sunu kër jël ma yóbbu ma vers dix ma dem ñu ne danga fa plainte nangam expliqué voilà fekk ñi ma porté plainte ñëpp bi ma dee fekk leen fo ñu déglu seeni version daan ne kii dañ ko joxoon sunu xaalis nangam nangam ma expliqué leen ni ma la expliqué nii ci audio yi laa leen ne ma kon yow tamit da ngaa sa xaalis mun leen dama versé sama xaalis deux millions cinq cent di xaar pour dem comme ñoom mais nekkul Assane Thiam mus naa koo xam fenn mus na noo am lien mus naa koo dencal dërëm xaalis bu ñu ma jox bu jëm ci moom dama koy yónnee papier yaa ngi ci man papier d'envoi dem naa ci banque ba bañ jénn ma ko bi ngeen may jox seen xaalis xaw ma leen xamoo leen ma da ngeen a xëy un bon jour woo ma ne ma Assane Thiam moo pour ma jox la temps bi koy def da ngeen a bëggoon a voyage pour dem xaw ma loo leen wax ak Assane Thiam ba jubóog moom xaw ma loo leen tënk ba jubóog moom da ngeen a tënk seeni kàddu yéen ba pare donc may contacter. kon awma dara pour doon complice Assane Thiam waaw Assane lu tax mu waxoon ma dama bëgg am quelques personnes yu ma la booleel comme ça nga récupérer ma seen xaalis nga dugaloon ma ko monogram benn mbir kese la woon man ak moom liñ doon déggante dafa bari ndax chaque jour dama ko doon teg pressing naan ko soo ma mënul yóbbu delloo ma sama xaalis xaalis boobu du xaalis bu ñuy lekk xaalisu miraas la xaalisu héritage du xaalis bu ñuy lekk su ko neexee jël ma su ko neexee coupé ma quelque temps mu commencé ma woo naan ma non c'est voyage bi dina sotti nangam sangam man tamit ma amaat courage daal ne ko voyage bi dina sottiwaat baax na maa ngi lay déglu mu ne ma daam sama trois personnes yoo xamante ni dama leen war a yóbbu te sama boy bi dafa dem Brésil dama bëgg sama quelque boy yooyu su ñëwee dinaa leen jox seen numéro ñu woo la comme ça nga courage ak ñoom ñu jox la benn xaalis comme ça après nga dugalal ma ci banque bi mu ñëw si man man tamit ma ne d'accord am problème comme ñooñu a comme man jox nañ ma xaalis bi garaawul amul benn problème man dina encaissé xaalis bi su ma ko ma ko encaissé xaalis bi dem dugaloo ko ci banque bi comme ça yow nga jot ci lii moo taxoon jël xaalis yooyu te xaalis yooyu yëpp bi ma ko envoyé ci banque bi reçu banque yaa ngi ci man lépp mu ngi ci man date d'envoi beeg reçu yeeg yëpp ñu ngi man man ma envoyé xaalis bi reçu yu bari mi ngi ci man mais nekkul man maa fi nekk di encaissé ay xaalis Assane Thiam di njuuñ njaay di def lii doxuma ci yooyu waaw su ma mënoon jot ci sama xaalis boobu sax moo ma gënal may jël xaalis jàmbur man xaw ma Assane dañ ñoo boole woon moom par téléphone laa xamee whatsapp waaw ni ngeen xamee Assane rek noonu laa xamee amoon ci moom courage ak confiance jox ko xaalis man dama amoon ci ci moom confiance ak courage jox ko sama xaalis dégg nga parce que xam nga bu ko ñi ko jox seen xaalis porter plainte mhm. indi ay preuve yu wane ne jox nañ ko xaalis mhm. même bu fekkee ne xaalis bi du woon pour moom mhm. mais moom bi mooy fay ah, moom mi hmm? ànd waaw parce que lañ ko jox moom lañ ko jox bu demee indi ay explication ne moom kay kayiti banque yaag diw laa ko lu mu ci mën di doon ñële moom buñ ko porté plainte parce que moom la ñu jox seen xaalis moom mu nangu ne moom la ñu jox seen xaalis hmm. moom mooy fay après nag léegi ñu xool nu ñu toppee Assane digganteem ak Assane hmm. moo tax moo tax moo tax fii fii abaa ku fi ku fi sànku rek confiance bu ëpp la sànk confiance bu ëpp moo la sànk xam nga ne kii moom lim joxe mënu cee jot ba pare war a lijjanti ñeneen. seen xaalis. problème la de. xamul li tax nit ñi mënuñoo gëm nit tukki mënul jaar feneen fu dul ci yoon bu légal. lu tax nit ñi mënuñoo gëm loolu demal ambassade wutal visa fukki yoon nañ lay dàq fukki yoon nañ la koy refuser fukki yoon mais parce que yàlla moo ko tuddagul. la de. yàlla moo ko tuddagul. Mhm. dem ambassade wuti visa rek coono la léegi boo ci bëggee boole nag bëgg a contourner yoon yooyu noonu nga yaakaar di nga tukki ci jàmm nit ñi ciy dóor bëri na trop. daañu rendez-vous seer na de. ñu dem. <laughs> dëkk bi. <laughs> rendez-vous 500000 lay jël léegi. booy ñu dem rendez-vous. 500000. pour dem. rendez-vous kese rendez-vous. xanaa buñ la may visa dañ lay kiiwaale ci avion. rendez-vous la rendez-vous. ci la. Ndiaye. Hmm. ma bi xam naa ne yaa ngi koy gis fan yii ki lan la ni benn xale benn xale la bu am presque amagul dix ans. li nekk fi lan la. dañ ko lakk. xale bi dañ ko lakk fële ca Mbour benn quartier bu ñuy wax onze novembre. Mhm. gis nga kanamu xale bi. kan ma ko lakk. dañu ne dafa am benn femme buy jaay ay chips ay gerteeg yooyu ci benn buntu kër xale bi mhm. ñëw ànd ak ay moromam. Mhm. ñu sàcc fa ñu ne xale yi ñoo jël deux mille yi. waaw mhm. xale yi mu àndoon daw ñu jàpp xale bii. ñu ne ci xale yi jël deux mille ci la bokk. waaw ñii na feer lañ ko teg ñii na dañoo tàngal kuddu teg ko ko. ñi ko jàpp ñoo ko def lii. waaw. ñii ne ñaareelu borom kër gi la borom kër gi ñëw ne sama ñaareel man la. te ñoom juruñu xale bi. juruñu ko xale bi ki mu bokkoon ndey ak baay may wax nii. dañoo jàpp ne nag lii mën na dem xëy na du mujj fenn parce que kiñ ko ki ki ñu jàpp ne mënuñ ko seexal nee nañu borom tur la foofu ca dëkk ba ki ko def. ci mbuur waaw quartier 11 novembre. waaw. ñu déglu déglu. maa ngi tudd Wizi Papa maa ngi dëkk Mbour 11 novembre. si terrain jalma bi xale bi nee nañ dafa dugg si si si biir kër gi am na di ko fee jaay affaire yooyu ay tàngal xam nga ba si quatre personnes lañ nag si li ñu wax ñu dugg jël fa deux mille francs jël fa deux mille francs ñett booy raw moom lañ jàpp bañ ko jàppee ñu ko jàpp waa kër ngañ ba waa këram ñoo jàpp di xale bi te moom ngañ ba tamit d'accord na ne moom tamit bokk na si ñi jàpp xam nga xale bi après lañ jàpp di xale bi dañ koo dóor loxo yi sax dañ ko ñaas ba pare kanam bi nag ñoom que kanam bi mom neena na kuddu lañ tangal kuddu biñ doon saafe pombiteer moom lañ japp après mu ne ben xalé bu jigéen bu xess moko ñaas ci kanam après la ngañ ñew si bopam borom kër gi ci bopam ne mom moko def après démb si guddi la confirmer neena na du mom moko def mu ne ñaareelam mo ñaas xalé bi jublu ci won lolu ñom nak door nañ xalé bi nak mu ne seen wa kër nangu nañ ñom ñom door nañ xalé bi après nak mu ne carrément jabaram mo nekkon ci bi rek fele fele Correcto. yore xam nga kudd bi ñëw ne eh, nañ ko ña ñamal tuuti nañ ko ñamal tuuti jublu si woon loolu nee na après mu teg rek affaire bi maase loolu loolu mooy yàq de kanam xale bi mbir mi nag nii la fa demee moom nag après feemaa bi suñu waa kër bañ fa demee dañ doon dañ dañ doon jaay suñu waa kër reewande suñu waa kër ñibbis après laa leen di xamale man naa ko nag dénoncé tout le monde après moom la ma woo ñun nag bàyyi mu sedd dem naa hôpital dem naa tamit hôpital bind na li ñu war a bind dem naa police jàmm gën plainte bi jot nañ si ñi nga xamante ne ñoo ñoo door xale bi famille la Modou Ngagne Ba ñaareelam moo lakk xale bi mais waa këram ñoom ñëpp ñoo ñoo ko jàpp dóor ko ba mu mokk ba pare mais jabaram ñaareelam moo ko lakk moom nangu na ne nee na ñaareelam moo ko lakk jublu si woon loolu da doon tiital affaire bi ëpp ñun nag bàyyi ñu mu sedd tey bàyyi ñu mu sedd suba dinañ topp affaire bi ba mu sës parce que ñun ñun mënuñoo xam ne est-ce que paiement bi tamit newaan nañ cinq mille francs newaan nañ dix mille francs deux mille lañ commencé demaat ba doole mën nañ ñoo néewal doole ba lii du mujj fenn parce que ñun mënuñoo xam carrément kii nee na la kii nee na feer la ñoo batikuwaat ne moom kudd la la jabaram jël bi mu doon saafee pomme mais affaire bi boo xoolee lakk lakk bi nekkul a ñamal lii nii dañ ko si teg teg teg bu yàgg parce que xale bi di gémmiñ bi dañ koy yàq yàq la xalaas. mu sedd ah, ah. dem nañ ci yoon de. ñaari ñaaw ñaaw am na ci. xale bu ndaw muumin. Hmm. di jigéen teg ci. lu ndaw ndaw. Hmm. nga mën a yëkkati waxuma la kudd xaw ma fer mais pusa bu tàng sax di ko teg ci yaramam jaaduwul. loolu mooy acte criminel la. non jaaduwul beneen bi ci topp mooy am doom muy xale ngay seetaan ba ñu koy tudd ci yiit rafetul. Mhm. am doom. Mhm. muy xale. Mhm. nga koy seetaan bañ koy tudd ci moo jël mille francs jàmbur jëlul mille francs jàmbur. rafetul waaye nag lu mu ñaaw ñaaw liñ ko def moo gën a ñaaw fopp. moo tax man am na ñaari am na ñaari yu yoo xamante ne. yaay da ngay am sa doom mu am cinq ans six ans du xam lu bëri nga teg sa xaalis mu jël dem ca digg ba jënd tàngal ak ñëw bu ñëwee da koy teg ne ko lii du ko def. Mhm. defati lii bu laajee sax nga teg ko tàpp taati nga teg ko tàpp mais lakk doomu jàmbur ci dafa jël. sama non loolu moom loolu moom bu jëloon lu raw dix mille sax jaaduwul. ba pare parents yi tamit ni wax. jël sa doom teg ci sa wet. bàyyi xale yi taxawaal ba ñu leen jiñ sax ci âge bi mu am ni maanaam nañ nañ ci jànge loolu tey boo bàyyee sa doom mu génn lu ne mën na ko caa fekk mais ñi def lii moom def nañ lu ñaaw. ay criminel lañu. fu ñu jëm feneen. Euh, yow euh, euh, dañuy waxati Aba wala dina ci xaj Aba dinañ waxati. Mhm. waxoon nañ dinañ waxati nañ bàyyi gaaw summee ko ci appel vidéo yi. <laughs> mënuma cee sori.